aka ñaaw aka taq aka suufee nga doon bay te doo wuy ju woote ndigal yi di dox ngay toog di xoole li la tee dem di dërëm te doo ko fa yónnee ab bay ndigal mooy léppam lu dul ndigal yi du farataam Cheikh ndigal yaay julleem bay yi moom la nu xam moom la am liggéeyu mbàkke baa ngay dox kanzil kitaab ba it ma ngay dox ñaar yépp sëriñ Muntaxa ñu ko jox ku ci doxulit du tee muy gën di dox jaaraama